salam salaamaaleykum kumba am ndey kumba amul ndey dafa xew ci rew mi gaañi xam nga ne kaaw bi nga doyna na trop ndax fuuta tampi wax yi mu wax audio yi mu wax jëmele ko ci mam jay Savon dafa doy war man nga demb wona ko telephone ba mu ñew mu duggal ko sama live di laaj ndax audio yi yaa ko wax yow la wala du yow mu deglu ko ba xolam sedd nan ma euh, xari jaar na fek ye ken xamu nan ma suma ma sama kër nga woma ak yoyu ba léegi ni ma tek ci kot léegi nak man ka dama koy topp bu mu sës leral ko bu mu leer nañ ki di Diva salu nak mom amna lu ko metti lol parce que moom yii nii xaju ci ndax kenn mosu koo dégg ci wax ju ñaaw wala wax wax ju bon liggéey la xam boole pat ak diggante moom Maam Ndiaye Savon diggante bu rafet la ndax Maam Ndiaye Savon ñëpp xam na ne bi muy meubale moo ko jaay meubal kon ñaar ñooñu kon koy wax dëgg yàlla nga xam ñëpp xam na ne commerçant euh, ki kii jënd ci moom kay mooy mooy xaritam mooy léppam kon Diba Saliou ak Maam Ndiaye Savon jotewuñ dara mais saytaane yi kaay ma leer leen kaa bi ni mu demee am zozo bu buñ ko wooyee téléphone comme sama genre gi rek dañuy bëgg ndimbal buñ bëggee mu dimbale leen am soosoo nga yorutut lu mu lu mu yorut mu ne jour boobu lu mu joxe waaye kaa ma yàqale la client divan saaliw bi mu duggalee appel bi divan saaliw nag xam ngeen sama genre rek dañoo war a au lieu ñu yem ci ñaan gi nii ñaan duñ ko def dañuy bëgg yàq nit pour mën faa am dara léegi nag moom mu dugg ci appel bi taltali ah maam Ndiaye Savon nii maam Ndiaye Savon ne li tas séyam ak nangam ak pour bëgg divan saaliw maanaam gën a kontaan te xamul ne boobu divan saaliw dafa sokewu ba ci appel bi sax rek lay wax lii moo waral dëgg dëgg dëgg coow li nag Diba Saliou nga am na lu ko metti ay mbokkam am na lu ko metti parce que xamut lii moom ku ko mës a xam xam ne fi mu toll nii social la xam-xam lu baax te màggal gaa ngi ñëw dafa focus ci màggal gi comprendre nga mais réew mi moo neexut a defee lu baax boo nee pat ñu ne dafa mer boo waxee ñu ne day xuloo lii mooy problème moo tax Diba mu mënta wax munu ci répondre parce que grande dame la du ci wax du ci yëy du ci yàbbi déedéet diggante moom Mame Ndiaye Savon ay xarit nan ñoom ñaar dañuy liggéey ay femme battante chaque jour ñu ngi dimbali ay doomu aadama amuñu benn problème léegi nag maa ngi ñëwaat laaj ci léegi léegi am soosoo dina dugg ñëw ñu leeral kaay ba mu leer naññ parce que am soosoo dafa porté woon plainte kii nga xamante nii moom mooy Fouta Tampi léegi nag kaa bi mi ngi woon ci loxo yoon xam ngeen ne justice Sénégal moom lu fa egg. rawatina criminal day leer nañ parce que ñoñu amuñu caaxaan alzina yo fa nek dañu jang ba yey seeni keuyit bo ñewé ñu indi la fa li ni njëkk def moy di waxtaan ak yow di la may café di la naxtaan ba nga yaakar na yow nan andal fekk ni dina lu bëgg xam gis nga buñ ko xamé nga xam ne lépp la ñu jekki rek na la waccel ci suuf manote duggal yobbu barke sidi di fall da ngay mujjé waru ci yalla motax rew mi gaay de len di jubal influenceur de len wax deug te bayyi jaxase bi ak gi bayyi len femme yi liggéey ngeen dugg seen biir di leen yàqal sama saar gi nga xam te ne xëyuñu gontuñu Diba Saliou ma ngay liggéey Mame Ndiaye sama ma ngay liggéey Mamy Kobara ma ngay liggéey ay fant mbub ñoo ñëpp ñu ngay liggéey ay fam batan lu leen waaye mën na waxal cagatuwuñu sàccuñu fenuñu dañoo marqué seen empreinte ci réew mi liggéey duñ ay kaakat kenn mosu cee taal seen live ñoom di kaa liggéey na leen xamee kan moo mës a gis Diba Saliou ci lu ñàkk fay dama leen laaj ay ah wax leen ma rek léegi nga topp leen ma léegi maa ngi laaj man Mara du peuple lépp laay leeral ba mu leer barke Sidi Birame Fall yéen xam ngeen ne man mbirum seytaane xajuma ci